au moins à l'endroit des des Lions ñu ngi waajal seen mondial bi. waa di leen di leen di leen encourager di leen encourager di ñaan yàlla mu mottali seen préparation bi ci jàmm di woo Sénégalais yëpp ñu nekk seen gannaaw parce que mais période bi du période du critiquer que ŋàññi xasante xam nga Sénégal ñun dañoo bëri xam-xam ñëpp entraîneur lañu waaye loo xam ne mënoo ci soppi dara fi mu toll nii nañu def bloc rek jàppale leen. Euh, ñu am suñu soutien moral pousse leen le plus loin possible euh, parce que suñu amee ndam Sénégal la ñu amal ndam du amaluñu ko kenn de manière particulière mais Sénégal la amal ndam leen yóbbu foofu suñu xaalis la ñun ñëpp suñu lémpo la du xaalisu Macky Sall du xaalisu Ousmane Sonko ak suñu xaalis la kii toog fii di jaay caaf pare dem ci boutique bi yor 1000 francs ne maa ngi jënd diwlin fay na 18 pour cent TVA ci loolu loolu la ñuy yóbbu ci budget bi te ci loolu la ñu financé ne ñoom nañu dem représenter Sénégal comme noonu la demee nag nañu def ñun ñëpp bloc autour de l'équipe bàyyi ñi nga xam ne nag ñoo am responsabilité def les choix ñu def leur choix la ca des ci bàyyi ko ci voilà c'est c'est souhaiter leen en tout cas une très bonne chance